détention yi nga xam ne inhumaine moo am ci suñu suñu Sénégal gii te ay année année année année ñu koy wax kenn mënul fexe ba trouver ci une solution réew moo xam dañuy wax ne réew mu civilisé la réewum teraanga la réewum démocratie la réew mu ñuy respecter les droits de l'homme Guantanamo sax nga nga xam ne fa la américains yi jàpp ay terroristes yeewu leen takk leen traité wuñ leen ni ñuy traité ñi Guantanamo te sax Sénégal dañ koy fàtte man mas naa fee dem benn 4 avril fii ci camp pénal ministre de la justice annoncé fa ne am na ñaari prisonnier Guantanamo yoo xam ne américains yi ñoo ko dénk Sénégal jëlee nañ ko Guantanamo indi leen fii ci prison Sénégal yi ñaari ñaari ñaari ñu ay terroriste lañ te ñooñu leer na ma ne bañ leen yóbbu foofu traité wuñ leen ni ñu traité imam Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara Ndao kon jàpp nañ ko pour terro pour euh, terrorisme tëj ko ñaari at ak juróom ña ak juróom-ñetti weer ci kaso te Moustapha mus ñu fekk ci moom arme boo xam ne mën na faagaagal ay nit mus ñoo dégg ci moom discours boo xam ne dafay woote ne dañ faagaagal ay nit te ba léegi si gisagoo fenn ci Sénégal foo xam ne dañu fa teg bomb wala sax ñu ne dañu amoon dañu jàpp ay nit ñu amoon yéen a teg fa bomb te ca Imam Ndaw lañ jóge man gisaguma ko j'ai jamais vu ça donc Imam Ndaw li ko dal metti na ba fu metti yam euh, heureusement ba mu nekkee moom ku gëm yàlla yar njabootam ci ñu gëm ñu nekk ñu gëm yàlla ñu xam ne également Sénégal gi am na ñeneen ñu ñu jiitu imaam ndaw doon dox ci combat bi mu doon dox ñu jaaraleen fii ñu jaarale imaam Ndao te booba tubaab yee ko defoon mais tey Sénégal ñi ràmp ñi fi nekk mooy ñi nga xam ne duñ ay tubaab yu weex ay tubaab yu ñuul lañ di def exactement les mêmes pratiques yi nga xam ne daanaka moo fi amoon du temps di colonialisme parce que tey bu fekkoon ne le discours de Imam Ndao nekkuloon un discours qui qui qui qui dit qui dénonce la domination bi nga xam ne moom la France di exercer toujours sur le Sénégal di dénoncer ni nga xam ne noonu la ñu yoree Sénégal nekk rek ci jàkkaam jooju ak ci daaraam jooju di jàngale li nga xam ne moo xew ailleurs intéressé wu ko kenn du ko traité niñ traité niñ ko traité moo tax Mame Birame Wathie à raison de dire que Imam Ndaw c'est un homme d'une dimension exceptionnelle un grand intellectuel Moustapha boo jëlee man dama ko déglu muy wax soo jëlee euh, daara ji mu yore jël imam gi mu doon teg fële déglu ko rek muy wax nga xam ne c'est un homme euh, d'une dimension intellectuelle exceptionnelle exceptionnelle c'est merveilleux d'écouter Imam Ndaw et malheureusement Sénégal on a encore perdu un homme de valeur boo xam ne euh, li ñu daloon ci Sidy Lamine Niass moo ñuy dal parce que benn waaye daf ma koy fàttali ma nga ca Italie def naa ne moom li ko jaaxal mooy Sénégal euh, ba Sidy Lamine Niass génnee àdduna ba léegi koo dégg muy yuux naan Sidy Lamine Niass moo fi gën nangam ak nangam te bi Sidy nekkee ci kaw suuf les mêmes ñoo ko doon saaga les mêmes malheureusement oui oui malheureusement c'est ça Sénégal parce que après le décès de Sidy la ñuy rendre compte mais ndekete kii li mu doon wax yépp di ko jooy di ko xeex xeexalu ko woon pour boppam wala njabootam mais gëmoon Sénégal moo taxoon parce que finalement lu mu ci gagné moom rien du tout rien yéen ñi ay héritier yëpp xam ngeen ci dara <laughs> mais imam la même chose tey imam tey d'ici quelque temps di nga saa a commencé d'ailleurs nga gis ñu teg des vidéos de imam Ndao un peu partout naan imam Ndao imaam Ndao imam Ndao alors que combat yi mu doon mëne ay waay yàlla nañu yàlla dimbali ba les jeunes ñi waxuma sax ñi ne ci daarama mais même les jeunes activistes les jeunes sénégalais yi nga xam ne dañu gëmoon parce que combat bi mu doon mëne te man dama jàpp dañ ko gëm parce que Moustapha gëm combat wu Imaam Ndaw gëm ne Sénégal amel na ko jukkal moom moo tax Imaam Ndaw ñu wax ne tëdd na hôpital ñu annoncé dans une journée ni Imam Ndao tëdd na hôpital dañuy soxla 10 millions pour prendre en charge évacuer ko avant journée bi jeex gars yi romb nañu 20 millions di dem. 30 millions loolu lu ko waral mooy parce que ñi ko def dañu gëm ne kii am na service bu mu rendre Sénégal et que militoo nañ ñu taxaw am na ñu fi woote ay cagnotte mënuñoo am 500000. yéex nañ ko def bien sûr mais. li ko li tax mu yeex mooy njabootam gëm yàlla guñ gëm yàlla euh, mënoon nañ dès le ñu annoncé ko nit ñi gaaw ci taxaw mais il a fallu que ñu dem ba du njabootam sax ah ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Cheikh Oumar Diagne ñoom ñoo commencé def initiative boobu ñoom euh, anibal Djim nit ñi topp leen ci mais bu du woon loolu njabootam du ko def du ko def dégg naa ñu ne ku mel ne Mariam Faye Sall waxoon na ne euh, mën na ko jël en charge ma ne c'est très bien parce que nit moom feebaree ku mën a wax ne mën nga koo jël euh, en rek muy première dame muy keneen dama naan bravo c'est très bien mais li ma leer mooy Imam Ndaw bu ñu ko fekkoon fa tëdd ñu ñu ko ne ko ah Mariam Faye Sall dafa bëgg la jël dina danaan ko li ñu ko bëgg a jëlee en charge ko def ci l'hôpital yi Sénégal yi ba doomu Sénégal ñu mën leen a faj mais bien sûr moom la man quand on a quand on fait salon d'honneur ak moom après taxaw nañu waxtaan li ci fajar gi Imaam Ndao genre boobu la. il ah. voilà muy muy muy koo xam ne kon ku ku ku ku jar a delloo njëkkal njukkal la te sénégalais yi wane nañ ko ci cagnotte boobu mais wane nañ ko également ñu koy gunge ngir yóbbu ko jébbal ko boromam ci ngaan Alassane fi nga xam ne fa lañ ko denc. sénégalais yu baree baree bari ñoo jóge fii ci Dakar ak ci yeneen goxu Sénégal dem ku gunge ji ko ñi ko am bariwul. ça veut dire simplement que ni Sénégal Sidi Lamine moo ñu ko waxoon et je crois que c'est une boo xam ne dañu nee na sénégalais du décourager mukk ci moom moom moom la loolu la wax ne moom du décourager mukk ci sénégalais parce que à chaque période de l'histoire sénégalais wane na boppam bañ yaakaar ne kii du sénégalais bi ñu xamoon te képp ku leen jii loo xam ne taxaw ci seeni mbir ne ji bis boo amee jafe-jafe ñëw taxaw loolu la ma sa gëm te Imam Ndao exactement loolu la gëm et ce qui est que man jàpp naa ne gis naa sax ñu ne il mérite ku mel ne Cheikh Alassane seen daf ne mérito na woon na deuil national loolu président de la République moo koy décidé mais dama yaakaar ne góor na maawu Sénégal ci boppam ñi nga xam ne ñoo bokk sax ak moom muy waa benn bennoog yi demee noonu ku ci nekk waroon nga taxaw sax yëg yëkkati am njaal jëmale ko ci imaam Ndaw ndax moo gën a rafet yëkkati am njaal jëmale ko ci imaam Ndaw ndaxte benn ñi ko jàpp yóbbu ko kaso war nañ ko baalo àq xaw ma tam fan lañ koy baaloo mais li ci gën a grave Moustapha gis nga à l'époque soo daan déglu les les débats man naa comprendre sax enqueteur wala procureur wala juge d'instruction yoo xam ne dañu yor dossier ñu wax leen de leen lii ak lii moo ne ci dossier bu ñu xool ko di agir en fonction de li nga xam ne moom lañ yaakaar ne moom moo ne ci dossier mais da ngay gis waa bennoo yi ngay gis. ñoo xam ne gis ñu dossier xamuñu dossier xamuñu ko imaam Ndaw xamuluñ ko dara à dañuy toog ci plateau tele yi naan waaw imaam bi lii imaam bi laa imaam bi lii imaam bi laa te xamuñu ci dara maa ngi ñoo ma ci am la preuve ba ñu demee ci àttekat bi nga xam ne mooy yor bi moom di ko xool di ko liir ba mu ko liiree ba mu jeex daf ne kii nañ ko bàyyi mu ñibbi këram ñooñ war nañ ko baalu waaw ñu baalu njabootam mais li ma gis tey mooy imaam Ndaw démb la faatu Sénégal ñu baree baree bari am ci lu leen metti lool ànd dem gunge ko jaale ko njabootam di ko ñaanal gouvernement wu Sénégal